waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Ndiogou Fall dëkk fii Yoff ak Apixide fas yéene waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy samay naataangoo ñoo fi tey xam lan moo xew fii depuis démb ba léegi salaam. ñu euh, déjà sax dañ leen di masawu par rapport ak euh, choc bi nga xamante ne moom moo fi am yaakaar naa ne metti na te daw na yaram ñu ko a xam déjà euh, naka la mbir mi demee. donc juste mbir mi nu mu demee démb. dama wàcc chantier ñëw si kër gi ñoo ñëwee ma ànd ak euh, yaay xale bi bon mu amoon benn doomam bu mu doon seet si koñ bi ma gis ko son mu lool ma ne ko léegi toogal mën ma dem jël sa course bi aw la mais finalement xale ñi ñoon seet sax ndekete nekkul ñoom ba ma ñëwee ba fii daal laa dégg benn choc ñu ne daw leen daw leen ndekete choc bi euh, xale yi la si laa daw nag ba ma dawee man ñëw fekk euh, ki nga xam ne ni man papam laa si moom muy Ousmane ma gis mu daanu si kaw tali bi finalement mu yooxu naa way sama ñaari doom sama ñaari doom bon si la perte région nag ma xam ne ne que donc est ce que ndaw ñaari xale ñoom ñoo faatu alors que ndeketee nekku ñoom nga njaay xale yi faatu ñu ngi béy ko parcelle doon ñëw si si kër gi ñun daal laa tombé si choc bi bon loolu laa fi jot bi mais man finalement xamatuma fan laa nekkoon te complètement xam nga ma perte réseau complètement mënatuma dara. xamatuma lan lay def mais lu ma gën a noon choqué xale bi moo ñëwee ba tiim xale bi jigéen bi pour man mënuma ko jàppale maa ngi koy gis mais mënuma ko jàppale loolu moo yëngal sama bopp bi ma daanu foofu mënutuma def dara si laa dem nag wéeru si miir bi gars ñëw xam nga ñu ñuy jàppale foofu man daal loolu laa jóg jot a si biir kër bi quoi science bi. Uh-huh. ñaari xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci euh, mbir mi góor la ak jigéen ñu toll ci ñaata at. bon xale bu jigéen bi mam yaay kii euh, Yandé Gaye mu ngi toll presque comme ni ko gars yi waxee entre sept ans huit ans Mohamed Gaye mu ngi toll si trois ans waaw ñaa ñoo ñoo fi ñoom ñaa ñoo fi ñàkk seen bakkan waaw ñoo ñoo fi ñàkk seen bakkan. ñu bëggoon a xam ndax ci euh, biir oto bi la leen fekkoon wala ci côté yooyu. non effectivement si biir oto bi la leen fekkoon dañ demoon bay retourné euh, pour ñëw si kër gi finalement si la oto bi. ñàkk frein si descente bi descente bi la béye ko ñoom fekk leen si oto bi ñoom ñu ngi si gannaaw oto bi si gannaaw euh, taxi bi leen nekkoon seen papa ak chauffeur bi nekk si kanam donc loolu moo tax xale yi mënuñ fexe bu sauver leen mais amoon naa yaakaar ne bu teeroon a am wàllu oh, man gëm naa ne xale yi war nañ mën a sauver mais nag ñàkk teel a wàllu bi ak gars yi niñ guddee ñëw moo tax euh, ma gëm ne xale yi loolu moo tax ñu ñàkk seen bakkan a am aussi ay leeral si euh, choc bi ñaata dese la def parce que nit ñaa ngi naan deux la ñi naan trois la. waaw effectivement trois la donc. am na ñaari xale yi ak kan. ak benn vieux. vieux bi la njëkk a fàdd ku ne gannaaw yi ñoo jaar si bopp bi paa bi génn àdduna ak ñaari xale yi génn àdduna muy trois personnes seulement la donc bon léegi naan am na ay blessé man man man si blessé leen ma boole woon mais man bokk ma si blessé yi fekk damaa ñëw fekk ma xam ne ñii sama famille leen si leen bokk ma tiit xamatuma lan laay def ma perte contrôle hôpital laa yeewoo sax permission leen ma sampalee fii ba hôpital donc ci laa xam ne man mii ko donc nekkuma quoi. Mhm. ginnaaw tamit ba jëy bi amee woo ngeen sapeur pompier ndax ñoom it euh, teel nañoo ñëw ci euh, ci barab bi pour mën a sauver ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee choc bi de. waaw effectivement ba mu amee itam suñu yi nga xam ne ñu ngi jàppale ñun wane sapeur mais comme gars yi ni ñu ko waxee rek xam nga dëkk bi dafa xat par rapport ak nga dem sa àll bi tey boo woowee benn sapeur pompier boo xam ne mu ngi war a béy ko parce wala war a béy ko géej wala war a béy ko euh, kii Liberté 6 embouteillage bi mën na la coincé ba ba ngay ñëw lu nga a sauver doo mën a donc wax dëgg yàlla wan nañ leen mais ñëw neen tardivement mais xam naa nag manque euh, kii bi moo leen circulation bi moo leen téye si yoon bi ba gars yi teeluñ agsi waaw. itam bi nga xamante ne moom moo doon dawal euh, camion bi tey jii ndax am ngeen ay nouvelles si moom. non man jusqu'à présent amoo si ñoom nouvelle donc euh, lu may dégg daal si internet bi daal donc moom moom moom moo mujj ñëwal boppam sax moom moom ñu mujj ñëwal boppam même chauffeur ba léegi gisuma ko sax. ba léegi gisuma ko hmm. jërëjëf ma lay remercier bu baax donc juste mbir mi nu mu demee démb dama wàcc chantier ñëw si kër gi ñoo ñëwee ma ànd ak euh, yaay xale bi bon mu amoon benn doomam bu mu doon seet si koñ bi ma gis ko son sonn lool ma ne ko léegi toogal mën ma dem jël sa course bi aw la mais finalement xale ñi ñoon seet sax ndekete nekkul ñoom ba ma ñëwee ba fii daal laa dégg benn choc ñu ne daw leen daw leen ndekete choc bi euh, xale yi la si laa daw nag ba ma dawee man ñëw fekk ki nga xam ne ni man papam laa si moom muy Ousmane ma gis mu daanu si kaw tali bi finalement muy yooxu naa way sama ñaari doom yi sama ñaari doom bon si la perte réseau nag ma xam ne ne ko donc est ce que ndaw ñaari xale yu moon si est ce ñoom ñoo faatu alors que ndeketee nekku ñoom nga njaay xale yi faatu ñu ñu béye ko parcelle doon ñib si si kër gi ñun daal laa tombé si choc bi bon loolu laa fi jot mais man finalement xamatuma fan laa nekkoon j'étais complètement xam nga ma perte réseau complètement mënatuma dara xamatuma lan lay def mais lu ma gën gënoon choqué xale bi moo ñëwee ba tiim xale bi jigéen bi pour man mënuma ko jàppale maa ngi koy gis mais mënuma ko jàppale loolu moo yëngal sama bopp bi ma daanu foofu mënatuma def dara si laa dem nag wéeru si miir bi gars yi ñëw xam nga dañuy jàppale foofu man daal loolu laa jóg jot a ci si biir kii bi quoi science bi ñaari xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci euh, mbir mi góor la ak jigéen ñu toll ci ñaata at. bon xale bu jigéen bi mam yaay kii euh, Yande Gaye mu ngi toll presque comme ni ko waxee entre sept ans huit ans Mohamed Gaye mu ngi toll si trois ans waaw ñaa ñoo ñoo ñoo fi ñàkk seen bakkan ñoom ñaa ñoo fi ñàkk seen bakkan. ñu bëggoon a xam ndax ci euh, biir oto bi la leen fekkoon wala ci côté yooyu. non effectivement si biir oto bi la leen fekkoon. Mm, dañ demoon bay retourné Euh, pour ñëw si kër gi finalement si la oto bi euh, ñàkk frein si descente bi descente bi la béye ko ñoom fekk leen si oto bi ñoom ñu ngi si gannaaw oto bi si gannaaw euh, taxi bi leen nekkoon seen papa ak chauffeur bi nekk si kanam donc loolu moo tax xale yi mënuñ fexe bu sauver leen mais amoon naa yaakaar ne bu teeroon a am wàllu oh, man gëm naa ne xale yi war nañ mën mais nag ñàkk teel a bi ak gars yi niñ guddee ñëw moo tax Euh, ma gëm ne xale yi loolu moo tax ñu ñàkk seen bakkan. ñu bëggoon a am aussi ay leeral si euh, choc bi ñaata dese la def parce que nit ñaa ngi naan deux la ñi naan trois la. waaw ah, effectivement trois la donc. am na ñaari xale yi ak kan. ak benn vieux. vieux bi la njëkk a fàdd ku ne gannaaw yi ñoo jaar si bopp bi paa bi génn àdduna ak ñaari xale yi génn àdduna muy trois personnes seulement la donc bon léegi naan am na ay blessé man man man si Blaise yi leen ma boole woon mais man ma si Blaise yi fekk damaa ñëw fekk moo xam ne ñii sama famille leen si leen bokk ma tiit xamatuma lan laay def ma perte contrôle man hôpital laa yeewoo sax permission leen ma sampalee fii ba hôpital donc ci laa xam ne man mii kat donc nekkuma quoi.